salaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, di weeru koor wi di leen ziyaara di leen baalu àq di ñaan yàlla jàmm yàlla bu ñu ci def yàlla ko yàlla nangu te fulandi ko euh, di tàmbali sunu nuyoo ci boroom dëkk bi son excellence Macky Sall di ko sargal di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla le ministre de l'énergie di ñaanal yàlla itam di ko nuyu le directeur général de la Sénélec monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé ci liggéeyam mu nga xam ne mu ngi koy def ci secteur énergie te kenn euh, naatable wu ko muy lu ñu mën a daj baaraam di nuyu euh, bépp directeur bu nekk biir Sénélec ci action yi ñuy def pour le développement de l'électricité ci Sénégal ak képp ku nga xam ne rek yaa ngi yëngatu ci mbiru courant pour que nit ñi fépp fu mën a nekk ci biir Sénégal am courant mën jallé wéru euh, weeru kooram bi ci jamm ak salam di nuyu sunu mbokk Cees ndax bu ñu nekk waxtu tey jii Cees bi ñu nekk motax tax bi nga xam moy mooy siège délégation DRCO bi ñu jité délégation DRCO bi nga xam mo moo région wu Cees ak région wu Diourbel su ko défé defee ñooñu ñëpp kilifa yi fi nekk liko tambalé ci kilifa diiné yi ci kilifa aada yi ci kilifa administrative ñu ngi leen di nuyu ñun ñëpp ku ci nekk turam santam di ko jox wàccuwaayam di nuyu nag mbaskanu kees gi yëpp ak li ko wër ak délégation bi yëpp ay di nuyu tamit suñu collaborateur yi nga xam ñoo nekk noo fii ci délégation bi muy chef de service yi chef de service gestion et contrôle chef de service distribution chef d' agence yi nga xam ne ñoo lënkaloo ak ñun di liggéey ci client yi muy ki nekk fii ci Thiès euh, ki nekk Mbour euh, chef d' agence bi Tivaouane chef d' agence bu Diourbel ak chef d'agence bu Touba soo ko gisee donc muy ay dëkk yu am solo yu nga xam ne ñoo ngànk délégation bi tax na bokk na ci délégation yu gën a am solo ci Sénégal Sénégal ak ci Sénégal tey nag ñu ñëw fii ah ci baaxaayu sëñ ah, Adama Jigéen bi nga xam ni mooy organiser euh, ndogu bi di ko def at mu jot ah, ren mu ñu sargaal Sénélec Sénélec ñun nag amuñu ko ëpp Mouhamadou Makhtar ñu delloo ko cër bi ni ko euh, yow kat pare parrainé euh, journée bi nga xam ni moom la association boobu di nekk association dooleel néew ji doole yi di organiser chaque année di def ay ndogu di ko yóbbu ci néew ji doole ñi ñi nga xam ne dañ ko soxla association boobu bi mu jëlee journée jox ko lekk ñu delloo ko Mouhamadou Makhtar Cissé xam ne mooy DG Senelec journée boobu nag incha allah ñu ngi ko jël dëgmal muy le 13 euh, juin deux 2017 di tombé fukki fan ak juróom-ñett weeru koor su ko defee incha allah dinañ bokk àndandoo ak am da jàmm yi àndandoo ko ak collègues yi àndandoo ko kilifa yi ak olomaaw yi ah togg ay ndogu yóbbu ko ci fi nga xam ne fa lañ ko soxlaa fu mel ni NFJA fu mel ni hôpital régional bu cees fu mel ni daara yi fu mel ni aussi maison d'arrêt euh, et de correction bu cees bokk kook ñoom wax leen li nga xam ni ñoo ngi koy def ñoon ak ñoom la su ko defee euh, lépp luñ ci am yàlla nañ ko yàlla boole ñun ñëpp ñu bokkoo ko. loolu daal mooy illay euh, bés bi ah, di ko tàmbali nag ci li nga xam ni mooy dëkk muy alxuraan incha allah bu ñu demee ba boori tisbaar dinañ fi wàccee kaamil ñaanal ñi nga xam ñoo dawlu ñaanal ñi nga xam ñu ngi ci ay xat-xat ñaanal xam ñoo ami soxla ñëpp yàlla faj seeni soxla ñi dawlu yàlla yërëm leen xaaral leen àjjana ah ñi am soxla tamit yàlla fajal leen seen soxla yi loolu bu buñ ci toppee nag ci ngoon gi nag incha allah ñu doog a nag jëlee fii seen a lekk jublu nag ci màkkaan yooyu ma wax léegi euh, séddale ndogu yi bokk ak ñoom boo xam ne daal ñu ak ñoom benn la c'est vrai que ñun dañuy jaay courant ak ñi jënd courant benn lañ waaye it tamit nag su ñu amee nag yenn bés yu ñu xam ne mën nañ koo séddoo ak ñoom ci li ñu am as tuut ah duñ ko duñ ci arrêté duñ ci hésité loolu nag di ci gërëm baax tamit suñu adama jigéen mi nga xam ne moo am xel bu rafet boobu yàlla na ko yàlla defal sutura defal ko jàmm mu yàgg ko taxawee ñu yàgg ko àndandoo en tout cas ñu ko wax ne ñun nekk nañ partenaire ci association boobu tey nañ ko tàmbale gaa waaye incha allah bëgg nañ muy gën a dem di ko gën a préparé ba nga xamni ëlëk ëllëg dinañu dem yeneen yu gëna am solo ci yu mel non inshallah rabbi assalamu alaykum wa rahmatullah mohammed Ngom man ma gérer le service gestion et contrôle au niveau de la délégation régionale centre-ouest délégation centre délégation régionale centre-ouest moy délégation bi nga xamni mom moy regrouper les régions administratives de Thiès et de Diourbel. ñun d'abord dañuy saluer initiative bi nga xamni suñu délégué régional jël nako muy le délégué régional Moustapha Dieye bon gis nañu bi mu ñëwee fii ba léegi en fait xel yi dal nañu parce que gis nañu mi ngi intervenir sur le domaine social mais intervention yooyu aussi bon dañuy delloo njukkal suñu directeur général parce que moom it aussi bi mu fi ñëwee ba léegi en fait moom moo wone bunt bi quoi ñun on fait que en fait suivre son pas quoi mu nekk nag initiative boo xam dañ koy saluer parce que ñëpp xam nañ ni en fait mois de Ramadan mois la boo xam ni c'est un mois béni quoi te lépp loo si def pour dimbali néew ji doon doole yi en fait sa bopp nga ko defal quoi moo tax initiative bu mel nii vraiment dañ koy saluer quoi mais nag duñ ne en fait duñ ne bulet quoi parce que moom déjà ku ko xam le délégué régional xam ni c'est quelqu'un boo xam ni il a toujours œuvre sur cette sur dans cette voie moo tax en fait bon organisation bi aussi bi mu ñu ko waxee ñun ñëpp jàpp nañ ci ku nekk jéem en fait def sa kéemtalaay kàttan pour que en fait suñu objectif que ñu recherchons par rapport à cette journée qu'on puisse l'atteindre quoi. madame Lo Khadija Touba, euh, maman assistante au e bi euh, au niveau de DRCO caravane suba bi une euh, initiative bu DG la mais suñu délégué régional moo koy donc ak suñu EGC bi fi Nous euh, mu une initiative bu baax parce que ay œuvre la ñu ko war joxé côté hôpital régional. ak euh, mag bi ak waa INEFJA suñu partenaire lañu mu nekk euh, la nga xam ne lu lu fi bees parce que temps yii rek defoon nañ fi benn kii woyofal social am ay clients yu ñu fi branché woon def ay aide ak yëpp booba léegi suñu DG bi ci la nekk euh, suñu délégué bi aussi nekk ci tamit au niveau de Thiès bi ak EGC bi ak yeneen chef de service yi ñoom ñëpp ñu ngi ci jàpp vraiment ñu ngi leen di ñaanal fan bu gudd ak euh, sagu euh, ba léegi yal na jërëjëf gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ci seen ak seen sant di wax ni que initiative bu baax la li tax ma naan dafa baax parce que bu fekkee ne dañuy daje ñuy toog ba mu tollu période boo xam ne nii ñu ngi ci jaamu yàlla ñuy jël maanaam lu day nii lu ñuy lekk. di ko jox ñi nga xam ne dañu nekk ci ay jafe-jafe mënuñu def lu dul saluer ko rawatina ñu jëmale ko ci ay daara jëlema ko ci hôpital bi jëmale ko ca kaso ba nga xam ne am na ñu fi nekk ñoo xam ne nii seen loxo jotul seen gannaaw rawatina wàcce kaamir bi nga xam ne dañ koy wàcc ci kër gi kaamir moom mooy téere bi nga xam ne ñun ñëpp mooy téere bi gën a màgg ci téere yi fépp fu ñuy toog di ko tari di ci ñaanal doomu aadama aji dem yéeg aji nekk fekk aji neew gi doole geek ñepp dal buñ ci ñaanal loolu dañ koy rafetlu voilà loolu lañ amoon luñ ci wax di sante di sante directeur général ci initiative bi mu jël ba pare rawatina mu financé ko voilà ñu ngi leen di sante di leen gërëm wasalaam maa ngi tudd Moustapha Yadd man maay chef d'unité commerciale bu Senelec bu Thiès euh, caravane ndogu bi nga xamante ni moom la Senelec organiser ren ji muy nekk une première donc loolu ñu ngi ciy gërëm di ci sant d'abord suñu délégué régional bi nga xam ne moo fi nekk Moustapha Dieye nekkal fi directeur général Mouhamadou Makhtar sise ñu ngi rafetlu initiative bi nga xamante ni am na ndaxte Senelec moom du pour rek ay agent ay client ni ci agent yi bokkee noonu la ci client yi bokkee ñi nga xamante ni ay néew ci doole ci ay néew ci doole lañ itam ci lañ bokk ndax ku yor leer moom ñëpp nga njaboote kon kenn ku nekk foo nekk leer gi nga xamante ni mooy jóge ci Senelec war na laa fekk ci fa nga nekk du làmp moo war a jóge ci sañalek dem ci client bi waaye social tamit war naa jóge fii ñu yëg ni Senelec tamit mi ngi xalaat ku amagul courant ak ku am courant yépp ndax ñëpp ci njaboot gi lañ bokk ñu ngi ñaan yàlla lii mu bañ a yem fii nekk euh, ay ati at ñu koy def mu nekk fierté directeur général Mouhamadou Makhtar Cissé bi nga xamante ni bii moom social moom bi mu ñëwee ba tey wax dëgg yàlla réeré wu leen ni dégg ngeen sax ñuy wax la woyofal social loolu moo ko fi indi lu bees la ndax moom moo fexe ba tey jii koo xam ni amul woon courant tey nekk cas social mu ñoo fekk la fa nga dëkk mu jox la courant may la ko gratuitement pendant une année donc loolu lu ñuy gërëm la di ko ci sant di ñaan tamit aussi mu gën a yokkuwaat ci réew mi yëpp ba ñëpp jot ci seen bopp. Fanta Coulibaly chef d' agence principale bu cees di wax ne initiative bi nga xamante ne sunu DG jël na ko ànd ci ak sunu délégué régional Mouhamed Moustapha Dieye initiative bu rafet la ndax lu toll ni weeru koor fekk ñi nga xamante ni ñu nekk ci kaso yi ñi nga xamante ni caabi leen féete ginnaaw ak ñi nga xamante ni xëy na bëgg nañ te mënuñu seen lekk fekki leen defal leen lu toll ni ndogu journée entière loolu dafa nekk lu rafet te ci lislaam dañuy dañuy wax naan dañoo war a jàppalante te ci loolu initiative bu rafet boo xamante Senelec jël na ko la pour bokk ak ñooñu noonu ndog ndog yi nga xamante ne ñu ngi koy organiser. maa ngi nuyu sama collègue yi nekk ci Senelec bi yëpp man la Awa Ngom assistante chef d'agence principale bu Senelec Thiès maa ngi nuyu sama collègue yi nekk ci Senelec bi yëpp di nuyu sama délégué régional di ko sargal di ko jox waayam di nuyu aussi sama chef d'agence. di len wax ne rafetlu nañ bu baax caravane bi nga xamantene mom la mom lañu initier té te directeur général euh, parrainé ko jiital ci suñu délégué ñuko sé sant bu baax diko ci vraiment initiative bu rafet la initiative bu ñu contane la te lu mu yëkëté rek bu nexé yalla dinañ ci and ak mom inshallah rabbi rafetlu nañ ko bu baax jërë ngeen jëf. suñu jëlé initiative bu toll ni vraiment si dëju Thiès ñun dinañ am courage trop di si wax parce que ñoom lépp lu ñuy dox rek si social la vraiment kontaan nañ trop waxuma laak nañu togg ay ñam na di ko jox ñi nga xam ne vraiment c'est des nécessités yal na leen yàlla jàppale daal te lii ñu jublu nii yal na seen naa Mouhamed dugal loxoom macha allah daal ñëpp kontaan nañ kontaan nañ suñu directeur général Mouhamed Mota Cissé kontaan nañ si Moustapha Dieye vraiment yàquñu dara macha allah yal leen yàlla taxaw te lépp lu ñuy sumb daal yal na ko yàlla jëmale kanam ndax askan bi yëpp dinañ ko jariñoo di delloowaat nag di sant sunu directeur général Mouhamadou Makhtar Cissé xamante ni lépp moo ko waral di baral gërëm nag sama patron muy ñuy wax Moustapha Dieye kooku moom zéro faute laay wax gis nga social bii ngeen di def nii lii ngeen di def fii la ko ji fii la ko njëkkee ci biir Senelec bi macha allah macha allah yàlla lafal cat yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla na ko yàlla lafal cat lan la ko yàlla sàmm làkk ko fu yàq yeggul su nga caravane ndogu bii ngeen di def initiative la boo xamante ni nii kii di ko organiser muy njegeen mii yàgg na ko sabablu yàgg na ko bëgg chaque année mu ñëw déposé mais ren la ko yàlla dogal fu ko yàlla dogalee ci monsieur Moustapha Dieye yàlla moom rek moo xam li muy def ñu ngi koy ñaanal yàlla nag mu dugg ci ak bismillaahi rahmaani rahim agalé ko alhamdoulillah rabbil alamin di wat di sant gis nga sénégal dafa am ay charte yu mu teural juroomi charte yo xamanteni sénégal Senelec daf ko teural mu nek mu bok ci suñu biir nga sama patron bi di Moustapha Dieye mi ngi koy doxal bi bu doxal moy le respect du client benen bi moy équité gis nga yoyu machallah mi ngi def bu koy def ba mu ba mu ci yoon mi ngi ko teg ci yoon man daal euh, li ma koy ñaanal euh, ah maa ngi koy tibbee ci sama biir xol ndax dafa am esprit d'équipe boo xamante ne nii mi ngi koy doxal ci biir ak ay collaborateur am ak ay agent am maa ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla na ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla làq fu yàq yeggul. loolu rek laa amoon ci li may wax. asalaamaaleykum man la El Hadj Souleymane Wade nekk agent en Sénélec di rafetlu initiative bi nga xam ni suñu directeur général Mouhamadou Matar Cissé daf ko jël décider parrainage spécial seen ndogu li ànd si ak suñu délégué Mouhamadou Moustapha Dieye mu nekk initiative bu rafet. comme ñëpp ñi ko yow waxee nag initiative bi initiative la bu bees ci nga xam ni mooy suñu Sénélec bi nekk Thiès. te événement boobu ñoo ngi ko amee ci suñu sa délégué régional bi di Mouhamadou Moustapha Dieye je crois que ni bi mu ñëwee Thiès ba tey œuvre mi muy def yëpp œuvre œuvre œuvre œuvre sec sociale la moom ci gàmm yi moom ci jàng yi moom ci néew di doole ji donc loolu tey boo leen jëlee seen ndogul lii ngeen pare ne ko le DG mu jëlaat lépp teg ko ci loxo seen délégué am nga xam ne dañuy togg ay ñam bu ñu xëyee wàcce kaamin togg ay ñam ci ngoon gi yóbbu ko ci prison bi yóbbu ko ci hôpitaux yi yóbbu ko ci INEFJA je crois que ni loolu initiative Seck bu rafet la di ñaan yàlla directeur général mi nga xam ni moo ñu fi indil suñu délégué bi di Mouhamadou Moussa Cissé moom Mouhamadou Moustapha Dieye lépp lu mu gis ci moom ba teg ko fi yàlla na ko yàlla tegal ca kanam a kanam ba mu raw njottam ci barke Seydina Muhammad Rasulaay ak ci barke weeru koor personnel Senelec bépp daal kontaan nañu te incha allah da ko ci accompagner ànd ci ak moom. salaamaaleykum maa ngi tudd Gora Jabaay Euh, nekk euh, unité euh, gestion prévisionnelle personnelle bu Senelec et patrimoine li nga xamé né sanalek da mën na ko muy caravane de solidarité bi nek na lo xamné mën nañu wax né lu lu bees la fi c'est une grande première nek ci magistère u Djey mu nek lu ñu rafetlu ndaxte Senelec société publique la boo xam ne euh, nekkal fi euh, soxla population bi moo ko tax a jóg bu mënoon na nag yem si euh, joxe courant rek mais bu demee ba nga xam ne si responsabilité sociétale entreprise bi nga xam ne société bu nekk am na ko mu ñëw di ci dugal aspect social di def solidarité loolu moom dafa nekk loo xam ne. dafa bok ci li contribuer ci développement durable rew ñu ngi koy rafetlu ah di ñaan yalla ñu def ko door ko ci bismillahir rahmaani rahim e, jeexal ko ci alhamdullilah rabbil alamin te mu baña yam yam tay ki nga xam tamit euh ko initier ah te ñu nek ci wéru koor ak ngëneel ci nek yalla nako ci yalla e, defal ndam ñu kawe ndortam yalla jàppale ko tamit ba e, heure bi dewen mu yokk ba yëg ko ak ñun ñu fi nekk ñun ñëpp euh, waaw loolu daal dañu amoon lu ciy wax di leen gërëm di leen sant.